Euh, ma jàmbal bi ñuy programme émission bi boobu man jàpp naa ni journaliste nga woon. Mhm. parce que su ma juumul yaa pardon def soixante douze heures wala quatre vingt seize heures quelque chose comme ça. Mhm. ak suma euh, xarit Chérif Dia. Mhm. ba boobu journaliste nga woon. mais man bi ma bi ma gisee démb Amadou Ba. organiser li mu organiser au King Fahd Palace. ma gis la fa gisuma la ci loge yi journaliste yi di toog mhm. ma gis la ci loge yi nga xam ne yaa ngi den ak les politiques mhm. ma xëy tey ma gis mhm. Amadou Ba investir na la ci listam ma jàpp ni man donc am naa problème bi ma lay invité journaliste bi laa doon invité ci xef a xippi mbir mi soppeeku ci man yaa ma ci mën a leeral bala ñu dugg ci waxtaan bi waaw bu fekkoon tamit nag aussi waxoon nga man ni ma dalay gêné moom dañoo annulé invitation bi wax dëgg yàlla euh, ba waxtu may wax ak yow journaliste la ndax investir guñ ma officiellement kon mën naa jàpp ne journaliste la ndaxte aussi teg ci jawaay jataay boobu war na ma en tant que citoyen sénégalais bu ma gisee jataay ba nga xam war naa caa teew gis nga coow loolu dafa a am 2008 bi ñu def ay assises nationales ba ku fa dem ma xool ba xam bokk nga ak man ma dama faa dem taxaw parce que sénégalais la am naa droit fu sénégalais woote ba dem fa am naa droit joxe sama opinion donc loolu jotewul ak euh, le journaliste la plus Euh, da may may ma tontu aussi. non mais xam nga non xam nga lu ma bëggul. Hmm. li ma nga baal ma quoi s'il vous plaît. Hmm. franchement dama bëgg nga assumer. Hmm. ñu avancer. man cest yàquma dara ci liggéey. non non xoolal du ma déranger. man non xar xar xar xar. bul ni da ngay assumer non non non non non euh. xam nga xam nga xam nga euh, référence bi nga bëgg jël. ci Abdoulaye Wade loolu du référence man jàpp ma ni loolu référence la li ma bëgg mooy nga assumer après ñu avancer fii nga toog ay politique dañ fiy toog may wax ak ñoom. ay journalistes dañ fiy toog may wax ak ñoom kon casquette bu mën a doon déranger wu ma. non d' accord. ok maintenant ma tontu la. ok casquette bu mën doon def mais assumer rek ñu avancer. s' il te du yow yaa may assumer loo wala ñàkk a assumer loo man maa jël sama responsabilité wax li ma bëgg a wax. dama la bëgg a wax ni la. Mhm. position bu ma nekk ma dama koy assumer. man maa jël sama responsabilité dem à la manifestation organisée par Amadou Ba avec sa coalition politique dem taxaw fa parce que am naa nisaru dugg dans l' élection euh, des élections des députés. ça c'est très clair. ok loolu laa bëgg a mais non xam nga da ma xam nga am non xoolal ma wax ni ma ba fii may wax ak yow nii journaliste la. no mais justement parce que xam nga lan kañ lay nekk ñàpp nekk journaliste bis bu ma taxawee ni Sénégalais yi bindatuma te loolu laa fas bu fekkee dama nekk candidat parce que xam nga il faut aussi à chaque son temps bu ma investir ma nekk candidat dinaa taxaw ni Sénégalais yi investir nañ ma officiellement nekk naa candidat taxawaay ba ma doon taxawee. xëy na war naa cee soppi ak nu ma ak bu fekkee daf ma sabab kooku sama responsabilité par rapport à ma mon éthique personnelle et mon éthique éditoriale. non boo waxee éthique nag xam nga lu gënoon. Mm-hmm. man li ma jàpp mooy nga wax nit ñi que nekk nekkatuloo journaliste mu mm-hmm. jiitu ñu lay mm-hmm. investir. non man pour man loolu mooy li gën. non c'est-à-dire nga taxaw ci posture nekkatuma journaliste. ba pare ñu doog la investir parce que man pour man loolu moo gën nga nekk ko bañ investir la ba pare nga doog ci génn. dama lay wax dara. xam nga tey investiture yi. dëgg dëgg jot yàkkamti ndax defe naa ne ak fin de semaine mu jeex am de kan boo la wax ne man décidé wu ma démb def loolu xam nga dara xamul kañ laa décidé kañ la décision bu ñëw ci man kooku c'est ma responsabilité personnelle kon nag da nga ah ak sama sago ak sama agenda ma déroulé ko hmm? parce que xam nga tey li ngay wax ni man dama am ay nawle yu may liggéeyal dama am public ba nga dañ may déglu di ma seetaan am ña nga dañ may topp ci lu may nekk kon da nga may bàyyi ak ñoom ma xool nag sama cëggal guy kañ laay déroulé sama agenda ak nu ma koy déroulé. d'accord ma jàmbal mhm. yow wax nga danga am ñooy liggéeyal am nawle mais d'accord mais loolu. Mhm. c'est important dëgg la mais naka nga xamee loolu ba pare mais événement bu mel noonu yow en tant que journaliste nga jël position maa ngi la gis nga toog Moustapha Diakhaté toog sa wet loolu <laughs> mais loolu loolu même. même xaa ñuy ñu ñuy wax waxu investir investir la ak ñàkk investir mhm. mais loolu mais loolu c'est important pour que nga expliquer ko ñi nga xam ne da nga say nawle la non parce que justement parce que justement parce que man ragal naa ni position boobu boo ci gisoon sa reporter. Hmm? wala nga gis ci keneen. mais war nga ko laaj pourquoi mu toogee foofu. waaw mais justement ba ci gisoo sama reporter mu dem foofu euh, toogee foofu bind article ba nga xamee ni que c'est en porte à avec son éthique journalistique kon dinaa ko wax lu mu fa toogee ku la wax ne yow ma fay dem tàggu ma ay collaborateur yëgalu ko ñu ngi may dégg man je suis transparent je suis transparent ku la wax ne tàgguwuma leen yëgal maa ngi dem ci daje ndaje sàngam lii ma fay yóbbu. xam nga waxtaanee naa ko waxtaanee ko ak samay man dama nekk jour ka nga dama nekk à l'aise sur mes de position xam nga lan moo tax ma nekk à l'aise mu ne ko prise de position xam nga tey da nga ne damaa toog ci jataay mais yéen yàgg ngeen accusé wala njort wala xalaat wala keneen ku dul yow wala keneen xalaat di xëy ne am naa ay prise de position politique parce que dañu baal gis may ànd ak ay politique di def ak ay politique ñu dëkkale la ay nekk kon am naa responsabilité fa may dem maa koy tànn ak la ma fay wax ak la ma fay wuti bref man maa décidé souverainement ni que damay dem investir sur le champ ah. politique et j'ai de bonnes raisons. c'est ça loolu laa bëggoon dégg dans ce cas là nag. loolu laa ah, dégg. nga ko. noonu non non dégguma ko. li nga ma doon waxtu loolu ah yaa ngi doog a. yaa ngi ah doog a lâché loolu. ah bon. si. non dama la wax di la. waaw. man xam nga da nga ma ni nga dem fa ñu wax la investir man ne la maa fa dem parce que dama fa en connaissance de cause. mooy xam naa la ma fay uti. la ma fay uti ku bëgg di làqatu wala dina nëbbatu doo dem foofa. Hmm? xam nga kon ku fa dem rek coow li xam bu ba bu bañoon ñu wax coow wala ñu bañ koo ñu bañ a gis ni def naa un langage xam nga kon du ma fa dem wala dama doon dama doon làqatu. maa décidé souverainement sol sama mbubb mu rafet dem fa taxaw jàkkaarloog samay nawle te la ma fa yóbbu ba ma ko laaj ma wax la ko. donc xam nga aussi Sénégal aussi il faut que ku nekk nangul sa moroom nga bàyyi ko liberté d'opinion maintenant tey boo dikkee nga gis ma ma def un article ba nga xamee ne ah dama jël une prise de position en faveur d'un camp ou d'un autre boobaa nga ni ma analytique politique mais gis ko ma bind article non no xam nga xam nga ma jàmbal euh, tey la alarba. Mhm. merc lundi. gis naa la nga bind article. waaw mais je booba lundi wax naa ah la. non mais non boobu nga bind. Mhm. xam nga article bi nga bind. gis naa ko nga attaqué régime bi. attaqué Ousmane Sonko. attaqué Bassirou Diomaye fay mais loolu ci semaine bi la. non mais justement. mais naka nga mën a naka nga mën a naka nga mën a expliquer loolu. waaw mais kon yow ba ma at kon kon yow y' a un mois y' a deux mois y' a trois mois ba ma attaqué Bassirou Diomaye Faye. non loolu position politique woon. non xam nga loolu. loolu loolu man dama ne. ci semaine bi laa la wax. non altine. waaw mais ku la wax di la yow. ah yow xam nga def naa kañ nga xam ba xam ma décision a été prise xam nga xam nga loolu aussi yaa ngi dugg ci sama xel quand j'ai pris ma décision j'ai pris mes responsabilités n'est-ce pas hmm? une position gis naa nga di wane photo c'est une photo ba nga xam qui est vieille d'un an hmm? donc c'est une prise de position que j'ai jël naa sama responsabilité encore une fois loolu du wax ci xam nga lan wax ci nga continuer gis ba jàmbaal mu naan la day revendiquer journalisme pare di continuer def activité politique boobaa nga mën a wax mais fi mu toll nii wax bi moom teel na bàyyi mag sama responsabilité am naa une posture posé naa acte tappal act boobu ba xam fu muy mujj ak lan ak ak nu may taxawee. c'est ça qui est important. Hmm? ok alors la dernière marche. moom hmm. lañu illustré. Hmm. c'est vrai que yàgg na. <coughs> yàggul sax yàggul sax laay wax. mais loolu. dafay am dafay am dafay am lëkkaloo. ak sa taxawaay. mooy livre bi nga xam ne bind nga ko ci Amadou Ba ak yéene bi nga am ci ànd ak moom ak taxawaay bi nga xam ne yàgg nga ko am ak taxawaay parce que li ma mënu li nga xam ni li nga xam ni bëgg naa ñu ñëw ci mooy position yi nga xam ni jël nga ko muy ci régime bi muy ci APR ak Parti démocratique Sénégal c'est-à-dire ni nga taxawee di di di di di fëgg ci ñoom mais loolu bi nga koy def da nga ak casquette journaliste nga koy defee mm-hmm. mais loolu loolu aussi ñi nga xam ni dañuy suivre nekk ay lecteurs mais bëgg nañu comprendre pourquoi nga nga ngay comporté woon noonu alors que ci sa biir yow xam nga ni politique ci politique nga. non xam nga da euh, a ñëw. bari a a loo bëgg ma laaj la ko ba la aw sens interdit loo ma laaj ba tontu. non waxuma la loolu de. ne la loo bëgg ma laaj la ko déedéet la lool. Mhm. dama ne la sama protocole a ngi nii bëgg naa ñu waxtaan ci lii ak lii ak lii. non waxuma lu ñuy waxtaan. non non non d'accord waxuma la lu ñuy waxtaanee. waaw dama ne la par exemple est-ce que am nga ay points yoo xam ni jàpp nga ni war nañ ko mën a waxtaanee lu bokkul man ak sama protocole. man ne la man aw ma sens. interdit kon c'est ça loolu laa bëgg mu leer. ma sens ce pas du loolu laal tontu. kon nag ci loolu la nekk. man la kon pare naa tout le temps que boo soxla mën nañ ci waxtaan. acca maintenant da nga wax euh, la dernière marche j'ai dama bind livre sur le candidat Amadou Ba wax son parcours wax ses forces et ses faiblesses mu nekk une enquête journalistique sénégalais yi lire ko gis ko amoo benn sénégalais ba nga xamee ni taxaw na fii du journaliste du keneen ku ni que c'est pas un travail professionnel de journaliste kenn musu ko wax parce que li standard professionnel dama ko def te loolu ma def moom la ñuy def France moom la ñuy def Amérique moom la def feneen pourquoi choix bi ci moom. non mais parce que damaa bindoon ci keneen keneen. xam nga bind naa ci nga yow choix ma la même chose xam nga lu ma la tontu woon. ni la ci bind ci ku ma neex ku mu neex nga bind ci Macky Sall wala nga bind ci Ba wala nga bind ci Idrissa Seck nga bind ci Ousmane Sonko wala bind ci ku la neex yow yaay xool kan nga am centre d'intérêt article de presse boo koy def sax da ngay xool ku la neex nga bind ko. doo tëb tëb nii parce war naa bind ci diw wala bind naa jiw dooy bind ci diw ah non c'est yow yaay xool sa ay sujet xool sa préoccupation wala xool sa public lu ko intéressé man ba may bind livre boobu ça intéresse le public sénégalais et la preuve c'était l'une des meilleures ventes de ce pays c'est ça la réalité parce que les gens étaient curieux de connaître lan moo wax fu jaar-jaaru Amadou Ba ak parcours am kon c'est un journal c'est un travail journalistique que j'ai fait donc ça n'a rien à voir. propagande. mais écoutez lu la neex nga tudde ko nii. Ah, mais li wër moo di bind dans un journal euh, un ba nga xamee ne taxaw damaa bëgg nga taxaw tey. wala benn sénégalais taxaw ni la la nga ca bind c'est pas professionnel est-ce que dégg nga ko livre bi am na un an est-ce que dégg ko ko wax donc kon waxuñu ko woon ba léegi nga bëgg ko wax parce que en ah, parce que les règles professionnelles ne changent pas donc maa jël sama responsable bindoon ci amatu Ba maa jëloon sama responsable bindoon ci Macky Sall maa jël sama responsable bind ci Adji Sarr ak Ousmane ko jël naa sama responsabilité je vais sortir bientôt un autre livre sur un donc xam nga kon kooku man man lay neex ak ma xool lu may ak ak ak lu may lu may lu may jox lecteur bi bu neexee lecteur bi nag mu liir ko su ko neexu mu bañ ko liir. léegi attaques yi ci PDS. affaire hmm. non attaque ban attaque wu PDS. si non article coalition bi non mais coalition laa wax. non mais lan nga wax lu dul mais loolu lii nu mu nekkee corruption yàggu fii ak coow yooyu. non justement parce que damaa ma xam nga ñëw ci di si ñëwaat. no non non ma man damaa poser ay faits li ma wax dafa xam am naam amul dama ne. PDS ak APR ànd nañu tey mais ñoom de ñoo fi te loolu sax defuma ko ci article bi tweet laa ko def parce que faut pas faire de l'amalgame aussi non non man xam naa defoo ko ci non non non non non ah, d'accord bi laay wax wa tweet bi ngay wax kon da nga ni non article x bi laay wax non non xam article bi tweet bi moom tu peux pas parler de ligne éditoriale donc faut pas faire d'amalgame mais tweet boobu ngay wax dama la ciy tontu man maa jël sama responsabilité nii coalition bii ànd fàttaliku nañu ni ñoom ñoo fi àndoon di porter accusation de corruption contre magistrat am na fi am na fi amul xam nga fee bi wax kenn du ko weddi man damay interroger les faits loolu am na fi am amul bu amul rek nga ni ma loolu amul foon PDS porté woon na fi plainte contre de magistrats pour corruption APR porté ko dama def commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale am na fi am amul kon loolu laa wax ni moo fi amul kon ma ni kon nag est-ce que kon ñii seen ànd tey wi du fàttaliku la xewoon démb ak bërki démb kooku oh, lan nga ci mën a reprocher. <laughs> non li ma la ci mën a. non li a reprocher mooy mooy défendre sa coalition. Hmm? après di attaquer beneen coalition. non défendre parce que boobu. sa coalition non non mënoon défendre nga sa coalition parce que gisoo fa lu ma fa défendre coalition. mënoo mënoo ko wax li ma tweet bi mën nga koo génne nga wane ko à l'écran gisoo fa ma tudd fa beneen coalition dama ne ñii ànd tey ñoo porté woon dossier accusation de magistrat loolu laa wax. d'accord léegi. coalition bi pourquoi nga choisir coalition bu Amadou Ba. très bien da nga may jëkk laaj ñu wax lan moo tax nga bëgg a politique après ñu soog a dellu si coalition bi d' accord nga loolu man nga man man nga ma laaj lan moo tax ma bëgg a politique. d' accord très bien raison yu bari moo tax ma bëgg a xam nga la moo tax damaa yàgg